ki ci des day fanaanee nelaw ba biit set ki ci des day fanaanee ree ba biit set na yàgg ngeen koo dégg abid la abit ak waliyu ak alim abit bi mooy fanaane jaamu yàlla di julli rek ba biir set alim bi moom day fanaane nelaw waliyu bi day fanaane ree bi nga xamee ne laaj nañ leen waliyu bi yow da ngay fanaane ree kii di fanaane nelaw kii di fanaane julli yéen daal seen mbir doy na waar te yéen ñi ni ngeen wuutee ngeen bokk benn néeg mu ne waaw man maay fanaane ree li may ree moo dina rek waa jii di julli léeg-léeg iblis ñëw bëgg koo yàqal waaye borom xam-xam bii nelaw xandooram yi rek mooy dàq iblis bu ko defee bu ne bëxër ña tiit dana daw xel yoo xam ne mooy tax ma di ko ree moom lay fanaane ree bu rek yoot ba bëgg a jege rek bu déggee kii ne xur rek mu daal di daw xel woo xam ne <laughs> day tiit moom laay ree nag moom xel laay ree ah jërëjëf sëriñ bi yàlla nga fi yàgg na nga yàgg suñ kanam ah, sëñ ma yaasin ngom moo jëkk laaj moom nee na dafay laaj ñaar rakk yooyu sëriñ bi wax ne ba xam boo jullee boo safaa witr ba pare nga koy def wala déet muy laaj bi muurum koor ndax bu jant bi soo ba weeru feeñ mën nga koo génne wala dé wala déet julli guddi bu dee ci weeru koor bu dul ci weeru koor bu dee leelatul xadar bu dee leelatul xadar yépp sopp nañu mu tóol te benn bi nga xam ne moo koy tóolal mujj mooy wéetar kon kon li ñu gën a sopp mooy li ngay julli lépp nga julli ko ba noppi soog a wéetar muy benn rakka boobu lu dul nga xam ne yow da ngay nit koo xam ne ku faral di bari ku bari nelaw la doo faral di yow bu ko defee nag nga safaa julli wéetar bu la yàlla yeeyee ci guddi gi nga julliwaat waaye bu ko defee itam nag da nga am ngëneelal julliwaat guddi waaye ngëneelal mujje benn rakka mu tool dana la faat ba tax ne kon su fekkente ne yaa ngi dundal dundal laylatul qadri nga julli li ngay julli lépp ñaari rakka yi yëpp ba noppi soog a wetra moom la ñu gën a tànn muru koor itam ulama yi bari nañ ci ay wax waaye ñi nga xam ne ñoo ko nangu gën a gaawal gi ne ñaari fan mën nga koo génne lu jiitu bis bi maanaam ñu ne gannaaw ëllëg la korite nga génne ko tey li ci gën a sopp nag bala ngay xëy dem ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko boo gisee ñu ngi koy jox moom lañu gën a sopp ndax muuru koor mooy asakay koor dañ ne koor dañ koy aj du ñu bindegun tuyaaba ji ba nit ki joxe muuru koor muuru koor du faat bu fekkante ne amuloo ko wala nga fàtte ko wala nga nekk foo xam ne mënuloo koo génne ba kor yi gi wéy ba féeg déwén itam foo ko fi mënee génne rek war nga koo génne bu ko defee nga xam ne kon am nañ ak yaatu goo xam ne mën nanoo ban bañ a raw ndax bu passé itam fu ñu ko fàttalikoo rek te am ko mën nañ koo def waaye nag liñ ci gën a sopp ndax ulama am na suñu dem ba ne sax boo jullee ba noppi soo koy def du doy waaye loolu wóorul doxul eh, sa suñu ko fenn daal bala ngay xëy jëm ca jullikaay ba nga génne ko joxe ko loolu la sopp bu fekkente nag war gi moom kañ lay war nee ñu bu weer wi feeñee war na te loolu war gogul fi ngay xamee lu tax ñu di ko toppatoo moo di ki juddu ci guddi gi bu fekkee ne dañu ne bu weeru korite yu feeñee rek ki juddu ci guddi gi war nañ koo génneel muuru koor bu fekkee nag dañu ne bu biir setee lay war kon ki juddu ci guddi gi muuru koor mi du ko war nga xam ne kon bu takku saanee ku juddu dana la war dana dana la war ndax bi jant di soo weer wi feeñ fekk na ngay dund bu fekkente nag kon jant dafa so bañ gis weer wi mu soog a juddu dañ ne du ko war ci ñi nga xam ne dañu wax ne bu weer wi feeñee lay war waaye war gi teewul ñu mën a génne lu ko jiitu maanaam ba mu waragul nga xam ne waragul waaye xam nga ne warugar la woo xam ne mu ngi ci sa loos te bu kori ki jotee bu weer wi feeñee dana la war nga dal di koy génne tey fekk suba la ñuy wari wala nga génne ko tey fekk gannaaw ëllëg la ñuy wari ulumaa yi wax nañu ne loolu itam mën na nekk xamoon ngeen itam nag ndax am na ay pot yoo xam ne ci lañ koy wax yi ulama yi def cee wuute ñi dem nañ ba ne un kilo huit cent ñi un kilo neuf cent ñii deux kilo ñii ba dem ci deux kilo cent deux kilo deux cent am na sax ñu ba tey ci lu ëpp loolu waaye li ko daan natte daal ñaari loxo yi bi sallallahu alayhi wasallam ñu mu tàllal nii ñu ne nag kon digg bi nit koo xam ne ne loxoom réyul ba mu ëpp loxoom tuuti ba mu ëpp mu tàllal ñaari loxoom sësale ko du ko tàllal ba mu ëpp du ko bank ba mu ëpp lu def koy def bi nga xam ne ci lay gën a mën a téye lu bari ba mu fees